démb gis nañ ni wala euh, euh, président Macky Sall woote woon na am ndaje ñu di ko wax dialogue dialogue nag waxtaan la waxtaane réew mi voilà waxtaane fi ñu jëm ak yeccaaju waaye euh, bi mu wootee ña daan ñëw moom ñëw nañ ña ñu xàmmee woon ci jaloog yi weesu ñëpp ñëw nañ voilà candidat yi nga xam ne nag ñoo waroon a gën a mën a ñëw candidat yooyu yaakaar naa ni bu ndee 19 la 16 yi kenn ñëwu ci ñaare ci ñëw ñaari candidat ñoo ci ñëw kon yaakaar naa ni Macky Sall ñam jàkkaarloo woon ñam jàkkaaroo lool ah, ah xëy na xëy na xëy na dialogue naa ak ñoom sénégal yi tamit euh, gis nañ dialogue ba gis nañ ña ca teew ñëpp voilà waaye est-ce que bëggul woon a jàkkaarloo ñi nga xam ne nii ñoo war a dem ñooy candidat yi candidat yi wuy siwuñ ko nag nan la koy def waaw nan la koy def loolu nekk na loo xam ne nii en tant que président woote wax dëgg yàlla daanaka mën naa ne ñam soxla woon ñu war a dem demuñu dana am nu mu ko def moom voilà xam nga nag ñee fa teewoon ñëpp daanaka mën naa ne wax jee bari nii rek waaye du ñuy candidat ay nit lan ñu fa taxaw yoo xam ne kenn ko ci nekk nag wax nga la la arrangé wax nga la nga xam ne loolu nga xam fa la sa xam-xam yam bari na ci ñoo xam ne ñooñu tey jii boo wéetoo nag ñoom euh, euh, euh, di waxtaan ak ñoom ci xam-xam ngeen pratiquer ñoom duñ ci kenn du ci pratiquer dara ñoom théorie lañ gën a man ci pratiquer voilà kon am réew doxewul noonu leer na ma ni lañu xam am na ñu leen raw fuuf ci xam-xam fi àdduna bi toll fi jamono toll voilà ndax ñu bari dañuy tawéere rek parce que seen wax yooyu ñuy wax noonu ay wax la yoo xam ne ci ñoom la yem Sénégalais yi bañ nañ ko dañ leen di sàppe sax voilà bari na ñu fa jël kàddu ñoo xam ni seen i wax gars yi dañ koy sàppe wala am si ñoo xam ne sax dañuy jël seen i wax taf seeni i photo di fa di wax lu ñaaw waaye ñooñu loolu lañu xam foofu la seen xam-xam toll waaye daal yaakaar naa ne am réew moom xam-xam dëgg bu wér surtout nag fii àdduna bi jëm loolu xamu leen ko mais dangeen ko xam àdduna fi mu jëm faaw ngeen wuti ji xam-xam ngeen argumenté xam-xam bu wér ta leer nekkatul ay théorie ay wax lu nuy jëf lay doon nit ñi di ci teg seen bët nekkatul loo xam dañuy dajaloo nii rek wax la la neex rek après ñu daan lay jox say million nga dem jaaxaani wala nga dem dugal sa compte banque dafa du yomb du loolu àdduna bi doxeetul noonu wala àdduna bi dafa changé suñ borom moo ko changé moo moom àdduna waaye dajale dajaloo jàkkaarloo président ndax président li ko gënal mooy président ki nga xam ne moom la gën a naw ki nga xam ne moom la gën a gëm mooy ki nga xam dafay jàkkaarloo moom di ko wax ay réalité di ko wax ay dëgg kooku lay gën a naw kooku lay gën a bëgg mais ki nga xam ne chaque jour bu taxawee wax wax wax wax joo xam ne ni moom président sax bu ko diggee reeru koy jàpp dana xam ne kooku du leen déglu moo tax tamit loolu la amee ci nit ñi nit ñi am na ñoo xam ne boo waxee ay fulla ak fayda wax lu arrangé réew mi dinañ la déglu ndax nit ñu defatul duñ ay jaay mais boo nekkee di wax waxi dof yoo xam ne sa waxi dof yooyu foofa lan la koy bàyyil te dootuñu la considérer comme sénégalais yow yaa nekk dootuñu la considérer comme nit nii sax boo am xam-xam daal dañ lay xool nii rek jàppale sagaru nit yow nga jàpp ni yaa voilà toj booy gi Sénégal dafa weesu fii ngeen toll tey voilà candidat yi nag kenn demul li tax demunu voilà ñoom ñoo ko xam président nag moom li mu wax leer na moom la dë day dem voilà léegi ñu bari sénégalais yi bari dañuy laa mel ni ko yow tëggal ñu rek ay élection même bu dee nekk ci biir koor gi sax tëggal ñu ay élection yow bul xool koy tànn koo dul tànn jeexal nga tëggal ñu ay élection ñun ñu tànn sunu président jeex na surtout loolu ak simple te yomb waaye nag loolu noonu bari na ay nit ñoo xam ne ni kenn ku ci nekk ak ni nga ko gisee wala kenn ku nekk ak ni nga ko jàngate voilà kon yaakaar naa ni euh, dara méttiwul lu métti rek yow yaa lu métti maanaam nit ko lu mu teg lu boppam lu métti rek moom moo ko teg boppam voilà te lii yëpp nag c'est parce que lan moo tax ñu in mu agsi fii tey Ousmane Sonko moom ci la bokk ndax dèjà bu dul dara ay discours mu ngi ci internet bi xam nga waxoon nañ leen ni képp koo xam ne jël nga sa discours wala sa vidéo ba envoyé ko ba dugal ko ci net bi dootul deñ voilà dootul deñ xanaa dëgg nga dajee koo xam ne informaticien dëgg la mu mañ la koo dindi voilà mais bu sa say wax wala say vidéo day des ci internet bi moo waral VAR bi di ñëw VAR bi gars ñooy jëliwaat wi vidéo jeex ko ci biir monde bi muy monde internet ba gis ko génn war tegal la ay VAR te doo ci dara voilà kon yaakaar naa ni Ousmane Sonko waxam yooyu yëpp mu doon wax tey jii yay nañu baree baree baree bari ku ko comme neex ak comme naqari yëpp Ousmane Sonko yay na ñëpp parce que lim daan wax lépp tey jii nit ñi ay preuve la yoo xam ñu ngi koy gis mënatuñ ci dara. ku ko wax ak ku ko waxut yépp xam nga ne Ousmane Sonko lam leen daan wax lépp tey ji nit ñaa ngi koy gis tey voilà te loolu yépp tey ba mu koy wax ja jamono boobu noonu nit ñi dañ doon wax naan kii voilà lu ne fu nañu dëkkal ko fa daal lu nañu tuumaal ko lu nañu wax ko daal voilà ba tey ji ba fii may wax yow nii tey ji mi ngi ci biir kaso mais tey la am tey la gën a am grandeur tey la ko nit ñi gën a faale tey la ko nit ñi gën a bëgg loolu c'est parce que lan la loolu sa dama sa départ bala moo tax kilifa yu bari waxoon nañ mbir mi bu fekkee xam nga ci dara bàyyil na na na mbir mi yam fii waaye ba ñuy wax loolu yow gisoo woo noonu léegi nag tey ji dem nga ba maanaam tànc nañ la ci miir bi aywa nga bëgg a dellu ginnaaw c'est trop tard léegi nag euh, nga bëgg voilà ni man li ma dégg nit ñu di ko wax admit si admit si la xuma voilà après euh, li fi jotoon a jaar dañ koy fàtte voilà loolu moom ma xamal leen ci leen xam nga bu ngeen defee seen i pexe ba loolu am xam ngeen bu leen fàtte ni maanaam àdduna daa yàggul chaque jour dañuy dajawaat ci kanam suñ borom te ñi ci dee moom ëllëg bala ñuy jéggi danañ taxaw ak ñoom lay ak ñoom voilà ëllëg moom danañ lay ak ñooñu voilà surtout nag yow mi nga xam yaa yore responsabilité bi képp ku ci taqoon wala képp koo xam ne ni raylu woon nga wala lu mën a am rek mooy ëllëg yow da nga taxaw ci kanamu suñ borom layoo loolu mais bu ngeen ko administré fii fële ca yowmal xiyaam kenn du ko fa administré ndax foofu lépp day leer dara du fa dem fii nag mën nañoo taxas taxajal lépp. maanaam mboolem nguur yi fi mosoon a jaar rek nguur gu ci nekk kaka jiite woon bu ëllëgee génération ba nga xam ne génération na woon ba jiitale woon lu fa amoon dee lu mu mën a am rek da ko lijjanti kanam suñu borom ci génération boobu noonu dara du hasard te beneen bi ci des tamit mooy ñi nga xam dañoo rey xam nga dañoo rey wala reyuñu képp koo xam yaa rey ba jublu ci rey balay bisu bala ngay faatu yow dinañ la rey wala ñu rey sa doom wala ñu rey sa sët te bu yomal xiyaama da nga taxaw ci kanam suñu borom kenn musta rey mooy asar faaw sa doom wala sa sët dinañ ko rey loolu moom bay bu ngeen bàyyi ci xel loolu suñ borom moo bindee noonu suñ borom moo bindee noonu àdduna seet loolu ñi niy rey rek ñaare boo xoolee boo xoolee histoire topp seeni maam da nga xam ne ñàkkul ni woon am na seen maam lu mu defoon loolu moo ñëwaat ba ci sëtam voilà loolu yëpp nag suñu borom moo moo nekk ki nga xam dafa maandu waaye ëllëg la maandu gi raw ndax ëllëg lu waaye defoon da ko taxawaat ci kanam suñ borom ñëpp di la gis na ko defe woon ak yëpp ñu koy wane mu mel ni ab film nii di daw nii ci cinéma ngeen koy gis képp ku rayoon na nga ko doon ray ak yëpp dañ la koy tegal ci kanamu suñu borom mbooloom yëpp di ko gis te foofu kenn du fa weddi dara kenn mënu faa weddi dara kenn mënu dara kan yaakaar naa àdduna jubal moo ëpp solo ndax ay dëngal ngir poñetu àdduna ñu fay law ngir ay kër wala oto jërul dara loolu mooy jaay sa àllaaxira jënd ko àdduna moo tax da ngeen di fawee seen bopp rek suñu borom ne leen bàyyil ba ngeen ñëw rek mag du fawee boppam am réew kenn du ko caaxaane ab peuple kenn du ko caaxaane kan nañu dellu siwaat bu baax a baax xam ni nguurug àdduna du dara nguurug àllaaxira mooy dara ndax nguurug àllaaxira du jeex ba abadan fii nag léegi mu jeex téeméeri at nga doyal sëkk ci li nga amoon